على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به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 wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar naudu billahi min annaar amsaynaa ala fitrati alislaam wa ala kalimati alixlaas wa ala diini nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam wa ala millati abina ibrahima xanifan muslima wa ma kaana min almushrikin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 noo ngi nekk ba tey ci suuratu hijr war a tàmbalee ci bopp aaya 71 baada audu billahi min alsheytaani alrajim qaala haulaai banaati in kuntum faa'iliin laamruka innahum la fi sakratihim لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينهطون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبهين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفه الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم الحمد لله رب العالمين نانجي بايكو fi malaaka yi ñëwee seet si waa sadum nga xam ni ñoom ñooy mbindeef yi njëkk def musiba boobu di nguur jigéen yàlla nañ ci yàlla musal musal ci suñu njaboot kon ñoom ñooy taaw ni qaabil nekkee taaw ci rey nit ci kaw suuf noone la bani sadum nekkee taaw ci góor séq ak góor loolu nag nekk loo xam ni lu ñaaw la lu bon la ndax wax naa ni bahima yi sax rus nañ ko ndax ñoom xamuñu wëlbati mbindeef lanu xam mooy la yàlla daganal ci ñoom ñoom nag yàlla yabal fa ay malaaka bi malaaka yi ñëwee li nu waxoon luut mooy àndal ak sa njaboot ak ñi ngeen bàyyi ba guddi gi xaaj ngeen dem bu kenn dellusi si di seet dara lu waay di waaj na ko waaj ndax su ngeen demee rekk diire bi du yàgg ñu indi mbugalam borom bi ba nitu sadom ya déggee ganu luut ya ndax bi ñuy ñëw ay waxambaane lañu taxaw doon ko gaa ñi daw si ñëw luut na leen tin leen ma <clears throat> ci sama gan yi ndax bokk na ci gàcce nga am gan mënoo koo aar ba ñu toroxal ko gàcce fa la ndax nitu démb dañoo fonkoon gan gan danga ko daan jàppe sa bopp néeg bi gën ci néeg yi nga koy jox lekk gi gën ci lekk yi nga koy jox ubbil ko sa xar kanam waxtaan ak moom ba mu ñeme kon nag soo amee gan ñu ñëw nar leen a fowee war ngaa mën a bañ loolu moo tax luut tere leen ñu bañ ne ko xam nga ni moos ñun li ñu bëgg mooy mooy yàlla bii te loolu la ñuy def lan moo leen ko defloo mooy bakkan mi nga xam ni moom am amaaratum bisu la tiitaange nag jàpp na luut ba mu wax-wax joo xam ni saay-saay yi jublu nañ ca xas ko ca te xamuñ woon luy intention ci wax ji ndax wax na waa dëkk bi ne leen su ngeen munta bàyyi samay gan kaay leen sama ñaari doom a ngi nii ma maye leen ngeen jël leen te bàyyi la ngeen di def noonu diine yi nag jàpp ni luut dafa asaaloo doomam pourquoi loneen yon subhaanallah noonu diine yàlla nañ ci yàlla musal xam ngeen ni yonent du daganal njaaloo luut waxul ci buntu ñu njaaloog doomam ngir bàyyi gan yi yonent du jëf bàkkaar boo xam ni bu bu mel nii xalaatu koo jëf kon jubluwaayam mooy ñaan na tinu na baññan mu ne leen su ngeen gën bëggee sax ma jox leen samay doom yi ngeen jël leen takk leen ngeen bàyyi ma sama gan yi lan moo tax respect ak orma bu mu am ci gan yi moo tax mu niirale fa lii borom bi ne qaala luut jaaxle na wax nit ñi ne leen haulaa'i ñii nii samay doom lañ te ñaar la in kuntum faa'ilin su ngeen mënta ñàkk def lu bon li ngeen bëgg a def kon jël leen samay doom te ngeen bàyyi li ngeen nara def luut li ko dal mooy amul mbokk ci dëkk bi amul fu mu wéeru su amoon ñu ko jàppale walla ñi ko gëm bëri te am doole day xeex ak ñoom waaye fii li fi sës mooy négocier lu mel nii nag dëkk bu mu am bu yeboo nga xam ni jàmm jeex na fa dëkk bu mu am dëkk bu ñuy fowee diine di ngóor jigéen fecc fo caaxaan comme nii mu amee ci sunu biir réew mii a lu nekk nanu ko xaar ndax kat ñun ñoo wañ suñuy loxo ne yàlla ñoo tey mbokk yi tey <clears throat> lépp lu tuddoon bàkkaar bu ñaawoon bañ di ko ñaawlu mi ngi ci suñu réew mujj naa nekk lu rafet loolu moom jàpp ma ni jar naa xaar diggante onze heures ak midi waaye kenn ku nekk ci ñun xam na lii may wax dem nañu tey <clears throat> ba alal gënal nañu ngor tey nit day jaay ngoram ngir am alal alal gënal nañu diine tey nit day jaay diineem ngir alal alal gënal nañu sag nit day jaay sagam ngir alal moom daal mujj nañoo nekk jaamu seefa jaamu diinaar jaamu dirham te yonent bi sallallahu alayhi wa noon na taisa abdu diinaar taisa abdu dirham torox na pert na alku na ñu ne ko kan mu a jaamu xaalis koo xam ni alal rek lay jaamu moom daal nu mu def ba am dagan na amatul benn contenu ci xool ci ni nii lañ ko war a utee walla déet loolu nag su demee ba àdduna alal mooy sang mooy àdduna yàqu na tey kuñ fi ne sang rek danga ngaa bëri xaalis waaye tey nekk sang dootul nekk ci juddu nekkatul ci xam-xam nekkatul ci leneen tey daal sang mooy bari alal loola moo tax <clears throat> façon bu ne dañu ko koy utee bis boo bëggoon a wax nit ñi utin bu dagan ñu commencé laa dugal ci créneau dafa soxor dafa iñaan dafa bon lan moo tax gisatuñ la yàlla daganal ak la mu tere mënatuñoo gëm ni alal bi yowmal qiyaam danañ ñu ko laaj fu ñu ko jëlee fu ñu ko jëmee mënatuñoo gëm lenn lu dul ni nanu am rekk ñu amee ñu fo su ko defee nag àdduna moom ku fi nekk il faut nga fo noonu la ko ñu bëri di waxee ku nekk ci àdduna il faut nga fo ah borom bi naa baax na maa ngi leen di déglu di leen seetaan ala kulli haal yéen a ngi ci pax moo xam ni kuy génn danga jaar ci ci man wa anna ila rabbikal muntaha mbir mi moom coow coow bis dana jot ñu laxas la takk say baaraam takk la ba nga dëgër yenu la yóbbu la ca biir armeel ya suul la keroog lépp loo defoon ci lu bon dana taxaw ci sa kanam nga war nag lu bon yooyu sawet nga war a xool nan ngay def ak moom kon mbokk yi alalu àdduna jarul yàq jikko jarul ñàkk sa diire jarul sànni alquran jarul sànni sunna nit bu demee ba nekk jaamu alal bakkan lay jaamu bakkan nag màndikat la boo xam ni du xiq mukk bakkan màndeem day lab saa bu xësee ba jeng dootul jubbantiku walla lu jafe moo tax <clears throat> borom bi ne la am amruka maa ngi giñ ci sa dund yow muhammad bu ko dégg na nga foog ni yow war ngaa giñ ci muhammad borom bi moom régle topp ko yàlla moo giñ ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ne lu tax yàlla giñ ma ne la moo tey ndax moom moom mbindeefam ndax mën naa giñ ci jant giñ ci weer giñ ci guddi wal layli ida yaxsha wannahaari iza tajalla wa shamsi wa duhaaha yàlla lu ko neex giñ waaye yow ñeme woo maa ngi giñ ci jant bi soo ko defee bokkaale soo ne woon maa ngi giñ ci guddi soo ko defee bokkaale yàlla nag moom sañ na ko moo tax yàlla waat ci dund muhammad ne ko la amruka maa ngi giñ ci sa dund nitu sadum yële innahum naka ñoom day <clears throat> xamal ni yaamahuuna ño ngay dengi dengi la fi sakratihim ca seen màndi ma la ñuy dengi dengee gis nga màndi <clears throat> bi gën a grave mooy màndik bakkan màndik làmmiñ ak gémmiñ xol day jékki màndi ma fer ku duggoon ci baar wala yaasu billah màndi lu mu metti metti balaa six heures de temps di nga commencé xàmme waaye mànditeel bakkan moo yées màndite làmmiñ mbaa yëg nga ni balaa làmmiña màndi bakkan màndi su bakkan màndee nag ci la borom di wax ni mënatuma koo bàyyi mënatuma koo bàyyi joo dégg bakkan moo ko lal nit daal lim mënta bàyyi mooy lekk mooy naan waaye li lay lor moo ndax seetlu ngeen ni ñu tubaab yi naxee ba di ñu ko foye pourtant tubaab yi ñoo indi cigarette mu bon lool ñu koy bañ ba jamono ñëw ñu reconnaître ko reconnaître nañ ñi cigarette moom lu bon la léegi nag bi ñu toogee ba xam ni mi ngi rey lu bëri ci seeni société di ko rey ci àdduna bi ñu ne lan mooy pexe bi mu ko defee nag OMS jóg ñoom ne pexe bi daal mooy bépp paquetu cigarette nañ ci desee ne kuy sukkuraat amaan na ku ko tiim war koo mën a bàyyi ma ne yaa ah, déedéet loolu du tere de bal da koo yokku bañ ko ci desee ne waa joo xam ne mi ngi ni yàgg ñu wan la ne ni la kii sigarekat moo ko nar a rey nga ñëw di jënd dama dem ci suñu station bi côté Kër Massar ma dugg foofu di am lu may jënd gis benn waay ne ko wàcceel ma deux fële mu wàcce deux ma xool waa ji xool booy bi booy bi xool ma ree waa ji ne lan la mun a sama paa bi daa am lu mu bugg a wax ma ne ko grand mu ne ah, ma ko ma xool paquet bi mu wan ma paquet bi ma xool ma ne ko lii lan la mu ne non non kii ku nekk hôpital la ma ne ko lan moo ko def lii mu ne ma cigarette ma ne ko yaa ciy topp waa ji ne ma ma jàmm ñaanal ma jàmm ma ne ko sëñ bi wallaay jàmm rek laa lay ñaanal mu ne ah, ma ne ko kenn du gis li lay rey nga di ko def man seen xel xaw ma fan la nekk mu ne ma noo non pourtant nag pas gis nga li nga wax nii vraiment seetlu naa ko quoi mais ñaanal ñu rek ma ne ko ñaan mënu la cee génne lii du question ñaanal ma nit nga topp sa bakkan di def lu bon bu ñu waxee nga ne ñaanal ma ñaanal mooy lan du question ñaanal ma yaa koy bàyyi amul ñaan bu la koy bàyyi loo da lay rey doo ko bàyyi mu ne ah ma ne ko bu ñu fi jëloon ndox léegi sotti ci liñ daan jox la di ko naan ah du ma ko naan ma ne ko moog li yem tubaab bi nee na la da rey nga ni tubaab bi merci ma non tubaab bee baax quoi xamal na man daf may rey rek may naa jënd quoi kon yow kan moo gën a ñàkk fayda kii kon gis nga ko yow xam nga ni moos lii baaxul gis nga ko. ci film yi noonu lañ ñu daan naxee da ngay dégg ñu ne interdit au moins dix huit ans au mois de dix huit ans saa buñ ko waxee nekkatul tere mais publicité la parce que am na koo xam ne bu xoolee inter interdit au moins de dix huit ans rek dana noon naa jéem a xam lan moo ci nekk kon nekkatul tere système la bu tubaab buy tëral di ko def yow nag nga mën a ñëw jënd loolu xam ne dalay lor la amruka innahum la fi sakratihim billaahi danoo màndi man di dong moo tax nga mën a jël cigarette ma ne booy bi kaay ma nettali la mu ne ah, ma ne ko man cigarette man fenn rek la ma jaaxalee ma ne ko xam nga lan la cigarette bañ mu ne mu déedéet ma ne ko jàmm li gën a neex ci àdduna la cigarette bañ tuxkat yi xam nañ li may wax ku ci am jàmm mën ngaa mukki tuuti bàyyi mais boo meree nooy def ah boo xuloog sa jabar bu ñu la dóoree fu mu mettee nga tux yow loo xamante ni fi mu gën a bone nga koy def boo kontaanee doo ko def ko war nga xam ne li baaxul kon li baax dafa war a fexe nga moytu sa bakkan bakkan danu koy yar dañu koy teral dañu koy teeral gis nga ni ñuy teeralee gaal ci tefes noonu la ñuy teeralee bakkan gis nga bakkan kenn du ko jël jiital ko teg ko ci li bëgg rek déedéet ndax mandite googu boo ci àggee dana dem ba mënatoo bàyyi sax yeneen yi gën a ñaaw nit dana àgg ci njaaloo foo xam ne boo ko ne xaraam na far dalay mere nit dana àgg ci mooy foo xam ne boo ko ne xaraam na dalay mere lan moo tax bakkanam mooy wëlbatiku nekk noonam pare pour nekk sa noon yow kon lu mel noonu mbokk yi noonu lay deme it nag demet ba ci la gënoon a yées ci Afrique Sénégal da cee muccoon lan lañ daan wax xeesal Sénégal dégg naa moo jël troisième ci xeesal ci àdduna bi allahu akbar deuxième non léegi mu jël coupe bi comme ñëw na ñëw na demi finale incha allah déwén mu jël finale bi trophée bi trophée xeesal moo koy jël ndax gis ngeen ci jigéen ñi ñu baal ma ku ko defatul bariwul bal ñun góor ñi sax ñoo koy def nag léegi nag ganaye yi meloon congolais yi <laughs> léegi ñun àgg na ci ñun sunu xale yi góor yi léegi dañuy xeesal xoola télé yi publicité yi gën a seer ci xeesal la jëm télé boo ci ubbi xeesal rek lu bon rek lañ lay wax jigéen ñi di diw góor ñi di diw mu mel ni daal xees moom valeur ci nekk boo xamul nu mu toll te pourtant tubaab yi bari bu ñu amoon lu leen fexe ba ñuulal danañ ci ñëw yow nag nga jóg ci bëgg a xees xam nga fu mu lay yóbbu bakkan la sa alal lay lekk ndax xeesal moom boo ko xësee ba def ñaar rek ay am soo bàyyee rek gën a ñuul yàlla moom ku am fayda la ci li muy def moom gis nga jamono ba ngay xeesalee boo bàyyee gën a ñuul boo banquee gën a ñuul léegi nag bu dee jigéen ju ñàkk fayda commencé naa xeesal ci tib yu seer dem ba amatu ko fu mu jëm bakkan bi lu mu koy digal lu bon la koy digal waaw waaw ah non boo diwul gars yi duñ la xool de noo bëgg a de ah xanaa nga jéem a xool ci gars yi rek gars yi ne laa fii de ko bëgg ñu jox la it ñun gis nga rek moom mu ngoog daal yàlla nañ ci yàlla mu toll kon gis nga da lay mbaal nga ne ci mbon di lab kenn dootu la génne waliyaasu billah damay toog di jàngat affaire yi di xool di xool ba ci yàgg rek mu yëngal sama bopp mooy tey àgg nañ ci suufee foo xam ni ña bon fa ñu àggoon àgg nañ fa te nag boo jógee rek gars yi tàgg Sénégal Sénégal li fi ne newul fenn mag ñi fi ne ma ne moom daa xanaa yàlla bi bi bind wàll yu Sénégal rek la taamu woon Sénégal dong nga am wàll yu amul ci beneen dëkk li fi ne newul fenn démb seetaan na benn émission mag ñi am Sénégal amuñu fenn ma ne ko ah, far nga nag sëñ bi nag yaa yaa ngi far nag waxal rek ci sa mbir waaye baal far xam nga mbir la moo xamante ni bakkan day yóbbu nit ba li muy wax dootu ko contrôler mbon googu nag dana dem a dem ba li ñaawoon day mujj rafet tey xam nga lan lañ lay wax mu nekk mu nekk xabaar nekkatul lu rafet de waa ji am na diplôme waa ji moo créé nangam nangam nekkatul xabaar xam nga luy xabaar rey na ko dagg na bët ba jaay na loxo ba seeñoo na tànk ba moo xew léegi nag fu ngeen tourné nag phénomène gone yaa léegi pare nañ ci rey mag ñi mag ñi moom xam nga bis mu nekk ngeen dégg ku ñu agressé dem na dem na ba léegi nekkatul sax fait divers rey nekkatul fait divers léegi xam nga ban mooy fait divers mooy reen di xale yi tëddee leen su yàggee danañu dem a dem ba li bonoon lépp lépp dafay mujj rafet moo tax borom bi ne la amruka maa ngi giñ ci sa dund yow muhammad innahum naka waa sadum yi ak ñu mel ni ñoom la fi sakratihim yamahun ñu ngi déngi déngi ci seen màndi gi danoo màndi ba pare gumba gumba nag su màndee kenn yóbbu ko muy waaxu jëbu toj rek la ciy jëlee kon borom bi loolu la wax léegi nag bi loolu amee luut daa dinay daw dem génn moog njabootam <clears throat> bi muy dem ñépp génn nañ jabar ji ne ko man dew ma fenn fii laay toog ma ne ko waaw wax nga dëgg de am nga fulla de fii laay toog léeg-léeg nga woo sa jabar ci lu baax mu ciipatu la ba tuñuy bëgg a teppiku tuñuy bëgg a te da lay ciipatu boo xam ne boo moytuwul rek musiba fekk musiba moo ko nar daal yow sa jëkkër mi ngi génn ne la maa ngi ne nga ne ko génn ma fii nga ma fekkoon fii nga may bàyyi baax na bi luut génnee ak i doomam borom bi nee na fa ca saasa rek axasat humu sayxa allahu akbar xaacu ga daa di ñëw mushriqiin di aji fenk ñu dégg yuuxu boo xam ni bi ñu ko déggee ñépp tiit ku nekk naan lan la màndi nañ su ko defee kenn xelu kenn dootu fi nekk ndax am na tiitaange boo xam ne boo ko xasee ba tiit sa fit day tukki bu sa fit tukkee yóbbaale na xel mi mooy li fi nekk léegi nekkatul ab nit bi mu ko defee malaaka yi wër suuf si waaw kenn ku nekk taxaw benn côté ñu yëkkatindoo suuf si mel ni ñeenti nit ñu yëkkati basang rek dëpp ko borom bi ne fa jaal naa ñu def aaliyaha la féete woon kaw ba ñu dëkk ca di ca dox di ci def lépp mujj naa nekk saafilaha la gën a suufe boroom xam-xam quraan yi nee nañu gis nga mbugal bii dafa dëppoog fi ñële ndax ñële lañ doon def dañuy jël aaliyaha defar ko saafilaha góor ku kawe la bu mujjee suufee musiba am na góor mi nga xam ne naturellement yàlla da koo bindoon muy féete kaw bu nangoo dëpp suuf mooy ko bon na moo tax fa jaal na aaliyaha saafilaha la féete woon kaw mujj naa féete suuf borom bi nee na yemul ca de wa am tar naa ñu daal di tawal alayhim seen kaw xijaaratan ay xeer min sijjiil yu jóge sijjiil gis nga sijjiil mii keroog ba ñu ko laalee ci xaw mu saddum borom bi laalaatu ko ba ci jamonoy abraha mu daal di ko indi tayran abaabila tarmihim bi hijaaratin min sijjiil borom bi ne ñu taw seen kaw ay xeer yoo xam ni mi ngi jóge ci bërëb bu ñaan si jiil ci jahannam borom bi ne yonent bi inna fi zalika aji nekk na ci mbugal bi ñu mbugal ñooñee di ci saddum yi la aayaatin ay aaya ki keemaan lil mutawassimin ñeel ñi nga xam ni dañuy màndargalu wa innaha xamal ni loolu daal la bi sabilin aji nekk la ci yoon muqiimin bu jub xocc yàlla daal lim bëgg jaar ci yoon bi li mu bañ moytu rekk kon nit su bëggee dem ajjana ajjana yoonam dëngut jubal dong la ihdina siraat al mustaqim yàlla nañu yàlla jubale yoon bu jub xocc njub nag dafa neex borom bi newaat na inna fi daalika aji nekk la ci lu mel noonu ki am xel war ca xalaat la ayatan keemaan lil muminin ñeel ñi gëm kon koo gis mu nangoo def góor jigéen gëmatul yàlla am ngëm yàlla déedéet jullit du nekk góor jigéen ku am ngëm du ko nekk saa boo demee ba nangu koo doon rek mooy perte nga sa diine yàlla nañ ci yàlla musal borom bi nee na wa in kaana doonte nekk na asxaabul ayka nitu gol <coughs> la zalimin di waji tooñ asxaabul ayka mooy asxaabu shuayba mooy nitu shuayba teen ba nga xam ni fa la daan rootee moo tudd ay ka ñoom it nag <clears throat> jël nañu seen wàll ci nar wi ñoom lan mooy seen wàll mooy ñoom ay commerçant lañu woon jaay ak jënd rekk lañu xam seen yoon nag ci riba ñoom daal noo yokkee ba am dagan na baax na noo fexee ba def dagan na baax na barki démb benn xale bu góor daf ma wax ne ma oustaz xutba bi nga defoon ci riba tegal naa ko sama papa sama papa riba rek lay jëfandikoo ma ne ko wal iyaazu billah mu ne bi mu ko dëgloo ba pare li mu ko ci tegal mooy su yàlla mënee lakk na ma lakk man fa yéene ma koo bàyyi bi ma waxee loolu ma naa ah, subhanallah loolu day yàlla bu mu ko dal fii nag peut wax ji du ko jàppee wax ju jub waxu diine lan moo tax daa am fu mu wéeru ndax bi ma koy rek laa ko ne sa papa lan la mu ne ma nàngam la ma ne ko waaw ndax moom doo dégg fii mukk ñuy wax ci riba xalaatuñ ko buñ ko waxee affaire yi du bari moo tax gars yi doo ko dégg kilifa yi fii toog naa moytu leen riba riba dafa xaram bu leen ko indi moytu leen ko de bu ko gaa yi bàyyee dootoo am ci affaire yi moo tax gars yi dañuy dem sàcc indi la joxe dem jël riba indil la joxe yow daal nañu la jox rek ki nga xamante ne nag xalaatam yépp mooy nañu ko jox mu denc du mën a wax nit ki dëgg yàlla nañu yàlla musal ci xam dëgg te di ko nëbb gis nga xam dëgg te di ko nëbb ñiy njëkk dugg safara ñooñu la ñuy doon awalu salaasatin bi bihimu naar yowma alqiyaama bokk na ci borom xam-xam buy nëbb dëgg munoo ma wax mukk ne ma ñi fi nekk di ay borom xam-xam diriger ay kër xamuñ ne riba xaraam na mais ndax di nga ko dégg ñu wax ko déedéet seeni taalibe dañ koy def ñëw ñu encouragé leen ca ne liggéey rek liggéey ñàq jëriñu waaw waaw liggéey kay ñàq nga jëriñu ma jëriñu ndax man du ma ñàq loolu nga waroon a wax waaye nag duñ ko wax borom bi nee na asxaabul ayka dañ doon tooñ moo tax yàlla wàcce leen waylun lil mutaffifiin léegi nag borom bi ne ba ñu ko defee fanta fantaqam naa minhum <laughs> yàlla nee na ñu fayu allahu akbar mbokk yi fayu bi yàlla yàlla nañ ci yàlla musal yàlla buy fayu du fayoo ndànk dóoram dafa ngand inna batsha rabbika la shadid yàlla bu dóoree du dal kenn day dal kenn nag ña ko jàppaleeg ña ko fekke woon projet bi ña ko tëraloon sax dóor bi dana leen dal moo tax lu jëm ci riba yàlla nañ ci yàlla musal borom bi ne fantaqam naa minhum ñu fayyu ca ñoom wa innaha ñoom ak jëf ju mel noonu wa innahuma naka jëf ju mel ne nga xam ne ñoom ñaar day la bi imaamin aji nekk lañ ci yoon mu biinin bu bir a mu ñëwaat ci beneen yonent mu ne walaqad kazzaba ci dëgg-dëgg nag weddina na asxaabul xijri waa kër ga xijr mooy diyaari samud diyaaru samud mooy waa kër saalix ñoom dañu daan yett montagne yi di ci dëkk wa yanxituuna al jibaala buyuuta ñoom moom waxuma la sax mool di tabax di calculer déedéet ñoom dañuy ñëw fekk montagne bu ngand yettu ko def ci ay kër kon nag sama sëñ daara nee na ñooñu ñoo njëkk dëkkee étage kon nag gis nga ko montagne la ñu jël defar ba mu jekk dëkk ci waaye nañ ca dëkkee woon nag taxoon na ñu naw seen doole ba foog ni mbiram yonant moom doole moo koy téye waaye borom bi nee na ba loolu amee wa aataynaahum ñu jox leen aayaatina suñuy aaya suñuy aaya mooy lan mooy gëléem la leen yàlla jox te ñoo ko laajoon ba gëléem gi ñëwee nag fa kaanu anha muridin ñu dëddu wulif loolee nga xamante ni joxoon nañ leen ko borom bi ne kaay ma waxal la ñooñee wa kaanoo nekkoon nañ yan na di yatt minal jibaali ci montagne yi buyuutan kër na am sécurité nag kër goo xam ne da ngay xool yett ba mu baax nga dëkk ci yaag sa njaboot am sécurité sécurité googu nag bis bu la taxee foog ni lu la neex nga def yëgal ni yaa ngi lor sa bopp mbokk yi bàkkaar moom max ñoo yem sooy def bàkkaar yaa ngi maxeel sa bopp gis nga nag max buy max doo ko xam day tabax ci kaw ba mu rafet peinture ko ngay xool naan mbir maa ngi rafet muy lekk ci suuf bis day jot rek mu ne këndëng wadd su ko defee nga am problème jullit na moytu jikko yi max max day yàq ci suuf su ci suuf paree fu mu jëm ci kaw jikko jooju islaam da ko ñaawul jullit bul def koo ëpp doole wan ko ko bul def koo mën duma ko bul def koo ëpple wan ko ko loolu baaxul gis ngeen ni société bi jamono bii dangay dégg di gis mbir yoo xam ni dafay yéeme lool xam ngeen yéen a ngi fi gis ab policier bu mbéj ab ponkal cib tëli taxaw ak sa moroomu ponkal ëpple woo ko dara nga abusé wu ci sa tëni dóor ko dëgg-dëgg jëf ji jëf jëf ju ñaaw la tey gis nga loolu yàggoon nay am dañ ko daan nëbb bi mu demee ba loolu di am nag ñaari wax rek laa ciy wax bi jiitu mooy civil bi moom alaa kulli haal daa war a am respe ci borom tëni bi ndax borom tëni bi daf fee nekk pour sa kaaraange ak sa kiiraay kon jox ko respe bi mu laaj respect bi nag taxut nga suufee taxul nga ñàkk fayda déedéet dinaa ci nettali benn anecdote Ousmane Beng bu fi nekkoon du ma weddi man ak moom la ak Oustaz Diouf ñuy dem la daawa bi ñu ñëwee ba côté Fatick ay côté une heure jékki am waaye arrêté ñu foofu bi mu ñu arrêté laaj pièces yi Ousmane jox ko mu xool xool xool tey pièces yi dem toogi ca benn mbaaram bu nekk foofu ak ñu toog ñun ci oto bi Ousmane demaat ne ko lan la mu ne ko il faut nga daanu kenn nettalu ma ne ko il faut nga daanu Ousmane ne ko mais dama bëgg nga wax ma lan mooy tax ma war a daanu mu a ko loolu amul explication daanul rek ngeen dem <laughs> mu ne ko ah bu ñu daanoo de duñ dem moom <laughs> ah ñu tourné toog ci oto bi nga Oustaz Ousmane moom yàlla da koo may fiix mu génne gaz bi baraada kaas ñu teg lewal Ousmane Mbeng wàcce cousin oto bi moom di nelaw ñu xelli lewal naan ñu naanee Juuf génne benn kaas dem jox ko mu ne ko am na ñaar ñu fi toog mu dolli leen ñu naan ñu toogaat deuxième jot waa ji waraat ba caaga naan ñii maay ci ñoom gis nga ñii ak seen sikkim yi fu ma leen mësa fekk dama leen di sonal ñun ñu ngi ko dégg mais tontu ko ñun ñu ngi ci suñu ataaya ñun ñu ngi ci yeneen mu jékki ba caag mais ana chauffeur bi ñëw laaj Juuf ne ko mi ngi nelaw mu ne ko comment nelaw ma ne ko ah da koo jàpp nee nga na daanu mënta daanu mu daanu nelaw non yéen nag da may bëgg a fonton ah man na ko bu la neexee ñu continuer <laughs> naan troisième mu toog a toog a toog ba jàgg ñëw non vraiment yéen xaw ma ban genre ngeen quoi mu ne ko gis nga ñun dañoo jóg pour dem woo ji ci yoonu yàlla ay yére la def fii ak leneen gis nga boo ñu witee ba suba it ñu ngi ci yoonu yàlla ndax yàllaa ngi ñuy bindal suñu tuyaaba suñu intention mooy jóg dem daawa ji nee nga du ñu dem ñun li ñu yàlla dig danañ ko am kon du ñu sonn mu toog ba càgg sukk ne ñaanal leen <laughs> wallahi loola ñaanal leen ma biñ koy ñaanal mu jékki ba ci yàgg déy ma ne ma paa man benn problème laa am man man di rek te dama ko bëgg a bàyyi wallahi loolu la ma wax ma ne ko juuf ñaanal ko juuf ñaanal ko mu jekki bàyyi ñu ñuy dem bi ñuy tourné topp nañu <laughs> dox na presque cinq cent mètres topp ñu oto bii daw ndànk ñuy waxtaanaale di dem ñuy waxtaanaale di dem bañ jàll xam nga lu mel noonu ci ab société ñoom léeg-léeg dinañu toll moment boo xam ni mer da leen di jàpp parce que dëgg-dëgg waxtu woowu yow yaa ngi sa kër tëdd nelaw moom mu ngi ci tëli bi war a fanaan kon kooku am na nooy def buy wax ak yow wuyu ko bu la arrêté taxawal su la laajee jox ko su la waxee lu mënta nekk toogal nga seetaan ko waaye nag am na loo xamante ni tontu mënta ñàkk doonte moom it formation lañ ko defal dañ ko wax ni citoyen bi respecté ko ndax sitoyen bii moo lay fay yow policier bi sitoyen bii moo lay fay ci say impôt mag leneen ci la la lay fay donte yow say impôt ngi participé kon kooku moo la fi tax a nekk jox ko cër moytul nga yàq deru mbooloo ndax lu mel ni boo ko defee police yëpp lañuy xas te kon benn nit moo xas lu mbooloo ñaareel bi est-ce que am nañu droit képp ku def lu dul noonu bu dee borom tëni rek ñu aar ko bàyyi civil yi su yàggee respect dootul am jullit day moytu gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kanamu kanamu jullit dafa noobal waroo yëkkati sa loxo di ko pes xam xam nga ni moo ponkal mu toll nii boo solul tëni bu la xoolee doo ko xool ba di ko pes kon boo koy pes ci mbooloo bul abusé wu ci tëni bi di ko pes moytul yore jikko yi ñu yonent bi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na sinfaani min ahli naar lam arahuma nee na ñaara ngi nii maa ngi leen koy wax ci sama xeet safara lañ jëm gisuma leen yéen di ngeen ko gis wa zakara minhum qawmun maahum siyaat yadribuuna biha na siyaatun ka aznaabil baqar yadribuuna biha nnaas nee na am na ñoo xam ne dañoo yore ay yar yu mel ni geenu nag comme lif di ko dóor ay nit yonent bi nee na du ñu dugg àjjana xeetu àjjana du leen xeeñ mais moytul nga bokk ci ñooñu liggéeyu police lu noble la liggéey bu noble la islaam araamalu ko dagan na mais mais respecteel sa morom amal cër ci moom su doon sa frère doo ko def noonu su doon sa mag doo ko def noonu comme société bi da ngay dem ba gis ni nit ñi dañuy dund mel ni comme ay comme ay animaux fekk loolu mbokk yi baaxul nit warta def koo mën rek nga duma ko loolu fa muy mujj nag mooy day dem ba société bi dootuñu leen respecté ñu jàpp ne société bi la fekk ne ñoom la kon man su may dénkaan mooy police nañu bàyyi xel ni dañuy liggéeyal société bi gendarmerie armée ñépp mais ñi fi nekk ñoo leen fi taaj mais warul ngeen jël def leen fowukaay warul ngeen jël di leen toroxal di leen tuutil beneen bi ki nga dóor kan moo la wax lan la dafa sibul rek xamoo lan la ñaata nit ñoo dóor nit ëllëg sa nit ki mujj nekk nekk dara fu muy mujj Mandela ki ko gënoon a sonal daa mujj a bokk ci ñi nga xamante ni <laughs> Mandela da leen defal teraanga defal ko ay doomam yow kii ngay pes fii mën na nekk président ëllëg bu nekkee président nooy de boo ko xoolee sëgg <laughs> ne waa ji laa pesoon de kon kon jullit day téye loxoom respecté boppam soo bëggee ñu respecté la respecteel sa bopp incha allah lu mel noonu borom bi dafa ñu koy moytuloo toujours mooy nit na moytu di jalgati na moytu di jaay doole loolu nag moo daloon xeet bee nga xamante ni ñoom dem nañu ba mujj gi njaay ak jënd tax na faale wuñu sax seen yonent faale wuñu Shuayb faale wuñu Saalix faale wuñu kenn moo tax borom bi nee na wa laqad kazzaba asxaabu lxijr mooy nitu gol ba de weddi nañ al mursaliin xam nga lu tax benn yonent boo ko weddee weddi nga ñëpp lu tax laa nufarriqu bayna ahadin min ku weddi Isaa weddi nga Muhammad ku weddi muhammad weddi nga daawud ku weddi daawud weddi nga suleymaan yàlla da leen def ñu nekk ay frère bokk benn mission amoo droit gëm kii bàyyike boo gëmee kii bàyyike kee yéefar nga loolu moom mooy mbir bi nga xamante ni leer na lool boroom bi nee na nag ñoom wa nekkoon nañ yanxituuna al jibaala di yett montagne yi minal jibaali ci montagne yi bu yuutan ay kër aminin am sécurité borom bi ne fa daa di leen di jàpp as sayxatu xaacu ga musbixiin ñuy way fajaru <coughs> dañoo fajaru rek jibril yuuxu leen borom bi ne keroog ba leen jibril yuuxoo fa maa agna doyut jëriñu anhum wuris leen maa kaanu yaksibun lañ doon fàddu doole ba ñu amoon di fàggu di tabax di yett jëriñu leen borom bi ne kaay waxatuma lool tax delloo sa bët ci asamaan wa maa xalaq na samawaat binduñu asamaan yii wal ard ak suuf sii wa maa baynahuma ak li ci diggante illaa bil xaq lu du dëgg yàlla nee na bindul asamaan li dul ci dëgg bindul suuf lu dul ci dëgg li ci diggante bi ci dëgg la ko bi yow nit bu ñu la bindee ci dëgg da war a bëgg dëgg di def dëgg dëgg nag mënta weesu gëm yàlla gëm muhammad sallallahu alayhi wa sallam saa boo gëmut yàlla gëmoo muhammad mënoo nekk ku dëggu kon nag gëmal ni da war a dëggu ndax borom bi ci dëgg la def lépp nag kon nag borom bi nee na ci la ko bind léegi nag mu ne wa inna saata maa ngi lay waxal dëgg gii di ñëw mi ngi sa kanam de bu fekkee danga bari bëri bàkkaar di def lu la neex xamal ni wa inna saata naka bés pénc waxtu boobee nga xam ni beneen waxtu dootul tege ci kawam la aatiyatun giñ naa ni day dikk allahu akbar borom bi nee na bés pénc day dikk kon nag fasfax jéllaleel assafxal jamil jéllale bu rafet xam nga luy jéllale mooy nit def la nga gis te xam ne dalaa tooñ nga mel ni ku ko gisul yombul daraja bu kawe la nit toroxal la nga nga baal ko nit def na lu bon nga baal ko mu wax la lu bon nga baal ko maqaama bu gën a rëy boobu amul kon mbokk yi ku nekk ci ñun na koy jéem a jàng maqaama yooyu dee ko jéem a da lay yëkkati du la suufeel lu la nit jaay toogal nga xom ko rek du yàgg rek mu làmbale mais bul toog naa ko maa la gën a nangam jaru ko boo goree toog seetaan bis dana ñëw dana raam ba sa wet ne diw wallaay nangam nangam ñii duñ ma bàyyi ma fenn am na jour bu ma leen jox téléphone ki ma gënoon a mën a saaga ci internet bi am na koo xam ni moom ay audio lu ne la def wax ju bon ju ne wax na dem na sax ba ne ndeysaan man doomi njaaloo la ah, ma reetaan bi ma reetaanee sama xel dafa dellu ci li ñu waxoon Shayba oustaz Shayba ñetti mbaar dafa doon def waxtaan benn paa jóg dimbale ñu ah yow bi ñuy takk sa yaay fii la ñu fekk wax jooju say ba waxtaan ba mu pare jóg ne alhamdulilah yëkkati mille francs ñëw ba ci moom jox ko ko ne mbooloo mi seede leen ni man ndeke duma doomu njaaloo paa bi ne yàgg nii waaw ah da koo seede daa foog ni da koo xas ndeke da koo seede bi ñuy takk sa yaay fii la ñu fekk mooy ndeke moom du doomi njaaloo gis nga ko loolu la say ba wax paa bi ne guyum mënatul dem moo tax fa buy tal la si waa ji dafa jékki rek woo ma di jooy ne ma man lu ma la def yaakaar naa ci kaw suuf boo ma ko wax wax ba pare ma ne ko ma ne ko <laughs> dama reetaan ne ko jéggee na non il faut mu wax la li ma la def ko jaru ko jaru ko am na ñu ma ko jox ci ñu gis nga gis nga nga mbir jéggale yàlla nañ ko yàlla mën loo yàlla nañ ko yàlla mën loo fan yi am na koo xam dafa may saaga rek ay 11 heures day woote numéro mi yor naa ko kii yor na dafa may woo mu woyee rek ma taal ko def ko mais libre laa koy def muy saaga may xàqataay ma ñàkk jom bi doo tontu doo wuyu billaahi lu mu xam ci lu bon daf ma koy wax ma kii nga xàqataay dégluwaat yow yow yow sax yow juboo yow ñu lay saaga doo fayu nii <laughs> da billaahi loolu la may wax non damay ree ba jaag ba ne nit ñi ñoo gàtt xel ndeysaan borom bi nee ne kon fasfax jëllalil as safxal jamil génne lu ko rafet xam nga lu tax dangaa wax lu ko neexut tooñoo ko mais moom tooñ la ko jàppee bu wëlbatikoo ne day dal sa kaw muñal ko xamul yàlla mën na ko dimbale ba mu bokk ci xam ci ñi xam borom bi ne na inna rabbaka naka sa borom huwa moom alxalaaqu mooy aji bind al alimu bi di aji xam incha allah la ñu yemal foofu dars bi daanaka waxtu bi jot na incha allah euh, am naa yaakaar nag moom samedi bii di ñëw ak bi ci topp dars du am dañoo am rihla daawa bu ñu war a daanaka dina jël douze jours incha allah ngeen defal ñu ñaan incha allah rabbi barakallahu fikum